foggeen wi séeréer maxesim naa nun maa leen di nuyu bu baax di nuyu mbokk yi fi daje yëpp di leen sant bu baax ndaxte ndaxte defe naa ne am na ay jéego yu ñu dox te li ñu ci yëkkati rek mooy ay mbokki Sénégal ak ku mën a doon rek amuñu ñu ci xaaj ak seen seetuñu ci entreprise ak euh, ku ne sa dëkk yor sa suuf ak ni ma ko waxee woon bu doon ñaari mellentaanu sénégalais sax dañu war a jóg jubale leen Euh, ma leen ci sant ndaxte woolu naa leen ndakaaru ngeen ñëw def délégation mbay Diouf mi samdi rek moo ko robaan defe naa tisbaar ba tàkkusaan suñu kër lañ toog di waxtaanee lu mel nii waaye kàddu yu mel nii bu jubee defe naa baax na ñu corriger ci tuuti walla leeral ndaxte euh, su ma juumul Abdou Dione wax nga ne te dégg naa ko sax ci rajo beeg télé bi ne man dama leen wax ne bàyyi leen seen suuf sédiment ñu wutal leen leneen waxuma leen loolu defe naa ne kàddu googu waxuma ko nit booy àtte da ngay déglu ku ci ne ci ñoom lan la proposé dañoo toog waa Sedima ne ñun kat boo leen amee feneen mën nañ leen ko defaral ngeen bàyyee ñu fii yéen it ngeen ne loolu mënta ne ndaxte bu fekkee loolu lañ topp rek waa Sedima tamit mën nañ ñëw ne ministre bi nee nañu ñu bàyyee ñu tool yi mënul mënul ne ndaxte ku ci ne sa kàddu lañ jokkalante abdu defe naa ne keroog ba ñu yendoo looloo am bi ngeen di dama leen ne. déggu naa leen bu baax kenn ci yéen jëlu fi engagement da ngeen ne da ngeen déglu si woon defe naa maak Cheikh John mii ñoo bokk benn bool di añandoo ba ñu paree loolu lañ waxat waxat ko bi ngeen di dem ma ne leen na seen xel dal jëlu leen fi engagement da ngeen déglu si woon ni ma def nag ba wax leen loolu yéen it boo leen may waxal sama kàddu da ngeen koy wax na ma ko waxee donc la sédiment wax la ñu jokkalante ak yéen la ngeen wax ñoom dañu ne boo leen ñu bàyyilee fii état utal leen feneen ñu utal leen ci këyit yéen man ma utal leen ndox utal leen équipement yi ca war ngeen dem ci yéen ngeen ne bugg leen loolu seen suuf ngeen bëgg donc ku ci ne mënoon a génn ci rajo bi wax loolu moo tax boo leen di waxati lu mel noonu ngeen wax ko na mu àggee ni mbay def léegi nga xam ne bi ñu waxee ne nangama fi ne mu ne man gat ba sàngam diw laa fa xam ndaxte ñun li ñuy dox nii bu leen jàpp ne dafa am ñu ñu gën a doon sénégalais ndaxte man du ma ministre bi nga xam ne moo maa yor suuf si wala ministre bi nga xam ne maa yor mbay mënoon naa toog coow li am ma toog sama kër te kenn du ma ko kenn du ma ko xase ndaxte du luñ ma dénk dama dégg rek ay sénégalais yuy yuy yuy jotee ci loo xamante ne mën naa mën na ñàkk moo tax ma jóg ci di ci wax donc li ma leen di wax daal mooy yàlla na ci yàlla def jàmm te it euh, ku ci ne rek nga doxe yéene bu baax ndaxte euh, bu ñu demee bay jóg di def kilomètre yëpp waxtu wi ngir bëgg jàmm ak lu yokk nit ñi wax naa leen ko nee naa leen bu ëllëgee ku ne gàddu sa suuf yor ko jàmm dina am waaye boo leen booloowee déggoo bu baax ci jàmm jàmm dina am njëriñ dina am te defe naa ne jàmm njëriñ moo ci war a topp